noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu boroom rekk mooy ki ko jagoo noo ngi juri di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu boroom mu dëkkee dotti waamam xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم دلو سيوات نان بنن يون سي رون كبارو خم خم بندب تفسير القران العظيم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان tey di juróom ñeenteel ci weeru koor tombeek bindëb juróomeel wala ñeenteel bokk ci suuratu ibrahim ci atum ñaari junni ak fukk juróom ñett ci gàddaayu ci juddug aysa junni ak ñeenti téeméer ak fanweer juróom-ñeent ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi taxawoon ci laayay fanweer ak ñett tey ñu war a tàmbalee ci laayay fanweer ak ñeent borom baa ngi wax subhanahu wa taala a'udhu billahi min ash-shaytan بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لا يويو موي بن نبتي في سورة إبراهيم alayhi wa ala nabiyina afdalu salaati wa taslim bu nu seetloo ci jeexintalu sunu bind bi weesu sunu boroom tabaraka wa taala mi ngi nuy limal ab lim bu limu ci xéewal yi nga xam ni borom bi tabaraka wa taala defal nanu ko loolu nag jullit bi gëm yàlla te gore comme ni ma ko waxee démb da koy gën a soññi topp boromam subhanahu wa taala ndax kat yàlla boo seetloo defal na lu la kenn defalut ci àdduna te bokk na ci am ngor mooy ki la defal ay njekk lam bëgg ca yow nga def ko te borom bi tabaraka wa taala kat lépp lu doomu aadamay yi soxla ci dundam sunu borom defal na ko allahu alladi xalaqa alsamawati wal arda borom bi tabaraka wa taala mu ni asamaan sii leen tiim man maa ko fi def wal arda suuf sii ngeen dëkkee maa ko fi def wa anzala min alsamai maan maa wàccee ci asamaan sa am ndox mu tudd ndoxum taw mu nekk maa an tahuran di ndox mu laab fa axraja bihi min alsamarati rizqan lakum borom bi mu ni maa ca génne ay meññent mboolem firiw yi nga xamante ni nit ñaa ngi koy lekk ya ca seer ak yi ci yomb yépp suñu borom ko def mboolem li ñuy dundee ci xeeti pepp yi sunu borom ko fi indi wa saxara lakum alfulka li tajriya fi lbahri bi amri borom bi moo leen tàggatalal bato wala gaal ngir mu mën a daw ci kaw ndox mi ngir seeni soxla ndax xam ngeen ni bu neexoon sunu borom dafay suux wa saxara lakum dex yi it borom bi tabaraka wa taala nee na man maa leen ko tàggatal wa saxara lakum alchamsa wal qamara jant bi ak weer wi sunu borom nee na maa leen ko tàggatal daa i bay ni ñu nekk yuy sax di remplaçante bii di ñëw guddi bii di ñëw bëccëg léeg-léeg benn ëpp morom ma léeg-léeg ba ca des ëpp ko gën koo gudd ci ay waxtu mu ne wa saxara lakum allayla wannahaar lii di guddi ak bëccëg nag te ku ne xam ne ne njariñ yi nekk ci guddi ak njariñ yi nekk ci bëccëg borom bi tabaraka wa taala nee na maa ko fi def yemul ca loola mu ne wa aataakum sunu borom yàlla nee na jox naa leen min kulli ma sa'altumuhu ci mboolem lu ngeen ko laaj ci ay xeeti xéewal bal sax nag da nga naan lépp borom bi defal na comme ni ma ko waxee ci suñu bind yële weesu aadama alayhi salaam balaa ko suñu borom di wàcc ci kaw suuf mboolem jumtukaay yi tax ak dund di yemb suñu borom da ko koo defal yaakaar naa ni bu ngeen xoolee oxygène bi ñuy noyyi ni mu yombee ndox mi ñuy naan ni mu yombee la ne ca géej gi yàlla yombal lu ay jumtukaay ñu mën ko di génne rab ya ca àll ba teñ mën koo lekk yàlla yombal nu ay jumtukaay yu ñu mën a naxee rab yooyu mën koo jariñoo tàggatal nu gëléem ñu di ko war di ko jëfandikoo tàggatal nu nag ñu di ko bayee di ko lekk tàggatal nu fas ak ni mu amee doole ñu di ko jëfandikoo waaye boo seetloo kenn ku ci ne sa jëmmi bopp ji rek wa fi anfusikum afala tubsiruun say bët yàlla yombal ko ngay gis say nopp ngay dégg sa biir di reesal say tànk di dox say loxo di fab mboolem xéwal yi nga xam ne lu sa xel daj ci lii luy jagalu dund la rek sunu borom yàlla mu ni man maa leen ko defal wa aataakum min kulli ma saaltumu mbokk yi xam ngeen ni àdduna bi ni muy doxee technologie bi li mu avancé ak lu mu avancé avancé borom bi tabaraka wa taala dong moo yombalal nit loolu ndax xam ngeen ni ca suuratu ruum borom baa ngi leeral ni moom mooy xamal doomu aadama ay yëf yëfaan ci biiru àdduna yi tax adduna yi jag moom yonent sax saasam ci wàllu diine sax dane ko wa allamaka ma lam takun taalam sunu borom yàlla xamal na la loo mësul woon di xam loolu nag bokk jullit yi waxuma sax ngay xool bët bu sori waaye boo xoolee bët bu jege rek yow ci sa jëmmi bopp ba nga juddoog tey la fi yàlla defal moom laay joxe misaal ma ni gis nga doomu aadama buy dund te nekkut milliardaire amut maanaam fi ne nit ñi dañoo am ay sédd yu du sédd ñii ñooy millionnaires yi ñii ñooy milliardaires am ñii ñàkk déedéet yàlla bindut doomu aadama bu nekkut milliardaire amut ci àdduna loolu maa la ko wax doomu aadama bu nekkut milliardaire amul ndax waxuma la xeeti cër yu am solo yi la suñu borom defar bu ñu ko doon weccaxndiku rek waaye kenn ku ci nekk tey boo nattoon ba nga juddoo ba tey li nga fi lekk ak li nga fi naan ak li nga fi fajoog li nga fi soloog fi nga fi dëkk li nga fi paas li nga fi mayeeg liñ nga fi may yooyu yëpp boo ko calculé romb nga milliardaire di dem problème bi kay mooy milliards yu dajaloo kay te cib loxo loolu la nit kiy wax waaye ku amutum am am amut ci àdduna borom bi tabaraka wa taala aataakum min kulli ma saaltumu lépp lu ñu yayoo lépp lu ñu soxla rek ci dund gi sunu borom yàlla tabaraka wa taala defal nanu ko moo tax mu ne wa in tauddu bu ngeen doon lim ni'matallahi xéewal yi leen yàlla defal laa tuxsuha du ngeen ko mën a takk ak a wax dëgg gis nga fi nekk nii bu doomu aadama yi doon jéem naan dañuy wàññi xéewal yi yàllay def bu soo bu soobee yàlla mboolem lan doon def danañ ko bàyyi te liñ bëgg a def nii du yegg kenn ku ci nekk rek fu jege fi ngay xool rek mooy li sunu borom wa fi anfusikum afalaa tubsirun gis ngeen ca suuratul balad alam naj'al lahu aynayni sa ñaari bët yii di xef ak xippi te bu fattoon rek àdduna tukki ci yow xanaa dumaa la ko defal wa lisaanan làmmiñ bi ngay waxee wa shafatayni tuñ yi ko wër wa hadaynaahu najdayni ma defal la ak yombal ba nga xàmmee yoonu jub ak yoonu caaxaan kenn ku ci nekk rek boo xoolee yow sa jëmmi bopp ci xéewal yi la suñ borom defal subhanahu wa taala xéewal yu rëy a rëy rëy kenn ku ci nekk boo xoolee suñu borom tabaraka defal na la yu rëy a rëy yu rëy a rëy yoo xam ni sunu borom tabaraka wa taala defal na la ko yii ci sag wér gu yaram yii ci sag lekk yii ci say naan yii ci sa jëflante lenn lu ca nekk kenn ku ne suñu borom yàlla defal na ko loo xam ni la waajo doon wax naan bu kenn ku ne doon xool boppam da nga lu mu gàtt gàtt xanaa mas nga nekk ci ay xat-xat yàlla xitali la génn la ci lu mu gàtt gàtt mas nga am jafe-jafe xanaa walaw maratan waahida te ëpp na ko sax nga ñaan ko suñu borom suñu borom nangul la ila axirihi mu ne wa in tauddu bu ngeen doon lim ni'matallahi xéewali yàlla yi sunu borom mu ne laa tuxsuuha du ngeen ko mën a wat du ngeen ko mën a lim du ngeen ko mën a dajale ba xam ñaata la innal insaana doomu aadama day la zalumun ab tooñkat bu mag a mag a mag la waaye kaffaar ku mën a weddi njekk kaffaar fii tekkiwut kéefër waaye li muy wet tekki mooy weddi njekk mooy kufru ni'ma wala jaxdu ni'ma doomu aadama daal ku mën a weddi njëkk la ndax borom bi tabaraka wa taala lii mu ko defal ci ay xeeti xéewal day yeyut woon muy jaamu keneen ku dul suñu borom waaye yeyut woon muy jaar ci aw yoon wu bokkut ak wi sunu borom gërëm lii nag ab soññ la ñeel kenn ku nekk ci ñun ci gën a farluwaat gën a góor góorgóorluwaat ci xéewal yi ko borom bi defal moom moom jëmmi boppam ji waxuma sax nit ñi yépp waaye xéewal yi la suñu borom defal tabaraka wa nga xam ni ji moom xam ngeen am na xéewal xam dañaa nit ñi ñoo ko jagoo waaye am na xéewal goo xam yow diw yow diw yaa ko jagoo nga xam ne yow moom xam nga ni nangam ak nangam ak nangam yàlla defal na la ko subhanahu wa taala sunu borom ni wa id qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim yonent yàlla ibrahim mu ni rabbi yow suma borom ijaal yàlla nag ma defal hada al balada dëkk bii di makka aminan muy dëkk bu wóor bu am sécurité wajnub nii yàlla nag ma fegal wa baniya ak samay doom an naabudal asnaama ñuy jaamu ay xirim lii de mbokk yi ab nettali bu yàgg la xam ngeen yonent yàlla ibrahim yonent bu yàgg la mooy bàyyi ismail ak isxaqa di maami yaquba kon yonent bu yàgg la jiitu ñoom muusaak ñoom eesaak ñoom ñépp ibrahima leen jiitu xam nga bu ñu lay wax isaak léegi naan la ñee ñaari junni at ak lu topp kon yaakaar naa bu ñu nee la muusaak léegi dana yàgg te diggante isaak muusaa diir bu gudd gudd la ibrahim comme ni ko suñu borom tuddee saar wi te junjoon naa ci as lëf yonent yàlla bu màgg la doy na rek sunu borom ni moom moo ko tànn def ko xarit wattaxada allahu ibrahima xalila ibrahima nag ku ne bëgg naa doon ku ne bëgg na mu doon sam ibrahima moo tax boo xoolee même juif yi sax dañuy wax ni ibrahima seen ibrahima la yàlla mu ne du seenum ibrahima de maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ibrahima doon ab juif doon ab chrétien loolu leer nañ la de xanaa ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يلا من إبراهيم دو سينوم إبراهيم دو, دو إبراهيم مزيف دي ديرت دو إبراهيم أهل الكتاب دي ديرت ولكن كان حنيفا مسلما إبراهيم كسري وان بوكالي يلا لتي أبجلت لون أبجلت موي كم ين لين دول لولا يلا وقت لولا وقت سنو برام سبحانه وتعالى إبراهيم نمال موتا كنك ديكو بغتي بوه waaye nag borom bi tabaraka wa defal na ko ci ay may loo xam ni bëriwut yonent yi ko am moo tax suñu borom ni yonent bi wattabi millata ibrahima xanifa ibrahim moo sos dëkk boobu ñuy tuddee màkka tey ci ndigalal suñu borom ci tënk bu gàtt ci histoire ibrahim ma nga dëkkoon ca côté Sham nekk fa ak soxnaam suñuy wax saarata ñu dund ab diir bu yàgg suñu borom mayu leen doom ba yàlla dogal mu takk haajara di yaay ismaila nekkoon am mbindaan fa kër ga suñu borom wër ko sëkkal ko ca doom du ñuy tuddee ismail yàlla digal ko na gàddaay toxal kenn ki yóbbu ko ca barab bii nga xam ne ndigali suñu borom ndax la cay firnde mooy defe naa fan yi yéen a dégg ci média yi ay wax yu bare bari ci diggante Ibrahima ak Makka ak yu ni mel loola jàpp naa ne ku cay bari wax dafa xamul rek luy histoire waaye ñu xam histoire moom seen wax du ca bari ndax ndaw sa bam ne Ibrahima ah yow àll bi nga may bàyyi lii est ce que ndigalal suñu borom allahu amaraka bi hada est ce que yàlla moo la diggal lii dañu ko waaw yàllaa ma ko digal kon jàpp bu leen jàpp ne Ibrahima dafa am ay yëf yu xewoon biir këram wala boog ay jigéen wala yene mel tax mu toxal kenn ka dedet yalla moko digal ni ko yobul ki fele allah amaraka bi hada ndax yalla mo lako digal muni waw ci la ibrahima toxale ndaw sa di hajar andi ko ci barab bi di makka ca barab ba bo xamni ghayra zi zar'in am bay amu fa inda baytikal muharram fofa nek ba wara nek bobu nak dëkk ba ab ndànd foy foy la boo xamante ni kenn xamut fu mu xotteeku jëm dara nekku fa du kaaba ga du ab néegu ñax du am mbaar du koy wétal du ab dëkkandoo ndaw si ba ko fa Ibrahima bàyyee ay xeer ak i garab ak i njaay àll donc bal sax nag li gën a yéeme mooy garab gu meññi guñ mën a lekk sax dafa amut woon maanaam comme li ñu naan garabug daqaar garabug buy garabug mango garabug koko garabug kóoni xeeti garab yooyu nga xam sa fii même bu doon beneen barab nga dem garab yun mën a jëfandikoo sax dafa abut woon ab ndànd foy foy la boo xamante ni daanaka ay kàddaki ay dóobaaleeg yu kenn xamut ci ay xeeti garab moo fa nekkoon Ibrahima dem bàyyi ko fa ndaw sa ne fa ak doomam ji ñuy tuddee Ismaayil ba ab diir sunu borom digal Ibrahima ni ko nag léegi tabaxal Kaaba ga comme ni mu ñëwee ci suratul baqara mu daal di koy tabax balaa maa continuer suñu aaya ji yaakaar naa ni jamono ji yépp yéen a ngi dégg ci média yeeg coow li daanaka internet beeg ñépp ñu ngi ciy wax ci kenn ci nit ñi ñuy wooyee nit yi politique mu wax wax joo xam ne wax dëgg yàlla wax ja rëy na nag waaw wax ja moom rëy na dari nag ahlu sunnati wal jamaa ñoom dañuy digg doomu toujours ci ay àtte ñoom bu mbir ñëwee mer du leen tax a wax lu ñu war ta wax ndax nit mën naa wax kalimatu kufr te fekk sax li mu wax xamu ko wala dafa juum wala yu ni mel moo tax nit wax dara rek daal di koy àtte génn ko ci lislaam waa ahlu sunnata duñ defee noonu donte nag nguur si li wax rëy na moom ndax man bi ma déggee ñu ni moo ko wax gëw ma ni moo wax loolu déedéet ndax koo xamoon démb jàpp ni moo tane ci ñiy waxal mbirum politique ndax ñaari baat yu mu wax ñett tegtaloo ab aaya mu wóor leen kii moom jàng na alxuraan moom moom li wolo bi naan lëg loo ko kontar kontar moom gaaw gaa gudd nopp ga moom war nga kaamana nangul parce que loolu la yàlla dogal alxuraan moom jàng na ko moom ndax ku jàngantoog ku jàng bu ñu waxee rek da leen di xàmmee buñ dee la diw sàngam moo wax wax ju rëyee nii wax joo xam ni njuumteb làkk am na ca wax joo xam ni njuumteel tuumaal yonente bi sallallahu alayhi wa am na ca wax joo xam ne njuumteel taarix am na ca wax joo xam ne njuumteel gàkkal julliti islaam yépp am na ca ah wax jooju kum rëyut ceew da ngaa xamul kii mu wax lan la xam ngeen ni ku dem bay wax ni makka sunu borom yàlla tudd ko ci biir alquran kooka moom am na benn cheikh ndeysaan bi mu ko toog ni kooku de kon waqaf yi ko yàlla da sant mu di ko jàng par bis jàng ko defe naa Cheikh Abdoul Aziz Touré moo wax wax jooju mu ne kii de su amee lenn lu muy teg tegtale mooy waqaf yi ko yàlla jàng digtal mu di ko jàng par bis kon jàngu ko wax na dëgg parce que alquran ku koy jàng di ko waqaf moom même boo ci xamul dara war nga xam ne màkka moom suñu borom tudd na ko feneen fu dul màkka ndax ci suratul fatih gis ngeen suñu borom tudd na fa màkka ju leer nañ waxul hada al baladi waxul baladi al haram waaye dani màkkata ju leer nañ beneen bi ci des mooy bàkka ci boppam mboolem mufassiruun yi ca ibni jarir al tabari ca ibni kathir tafsir al qasimi tafsir al qurtubi tafsir al euh, shawkaani ba naylul euh, borom naylul awtaar maanaam mboolem tafasir yi nga xam di ay boromi xam-xam yoo xam ni seeni xam-xam ci alquran kenn wu ko ku ci nekk ba muy tafsir bàkka lam ko tekkee mooy màkka te it nag ay tegtal sax yu weneen loolu lay tekki ñëw na ci aaya ji kon bu wenn waay jógee fële boo xamante ni leneen la jànge woon ni makka ci boppam yàlla tuddul ko ci alquran ñu ni déeta waay mu ni bakkata ci boppam nekkut makka ah kii li wax mu ngi bëgg a rëy de wax na ay wax yoo xamante ni daanaka yow bu fekkoon tey di ab qaadi mooy àtte ci lislaam maanaam tuumaali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ca wax na ay kàddu yoo xamante ni bu fekkoon lislaam mooy àtte islam nag buy àtte ma du tëb tëb rek nit wax benn wax rek ñu daal di koy tëj duma ko déedéet dalay woo ñu ne yaa wax wax ci ba mu nga ne waaw loo ci jublu nga leeral gis nga boo saxalee lam wax moom mu jëflanteeg yow bu fekkee weddi nga ko nag mu xam ne da ngaa juum wala da ngaa xamul waaye jàpp na ni lii ku xamul dara moo koy wax man nag sama analyse yi bopp bi ma ko defee damaa jàpp ni ñaar ci yëf yii rek moo tax nit di def li muy def léeg-léeg nit yi àdduna yi danañ jékki-jékki suulu dañuy jékki-jékki suulu gis nga bu ñu suuloo faw ñu sulleeku parce que bu ñu sulleeku wut duñ mën a àgg fan jëm te pour ñu sulleeku faw ñu wax lu rëy wala ñu def lu rëy loo xam ne nit ñi lañ jàppoon lépp danañ ko bàyyi jublu ci ñoom nag gis nga lool yow mii di ab jullit yaa yaakaar ni amul benn njariñ ak am njariñ ca ñoom maanaam nit ki suulu ba nga xam ne nit ñaa ngi lay bëgg a fàtte wala boog nit ñi nekk ca yeneen bala léegi pour nga sulleeku il fallait nga wax wax ju rëy wax ju ëpp gémmiñ wala nga jëf-jëf ju rëy ju ëpp gémmiñ fekk yaa ko gën a tey waaye ngir bëgg nit ñëpp sam la parce que loolu dafa leen déclenché waat nga xam ngeen ni fan yii yëpp gis nga foo wëlbati ko internet beeg facebook ba jàppal idi bàyyil idi lu waral loolu yàlla moo xam ndax boobu laa am déet ñaareel bi léeg-léeg nit dana ko def fekk xam ngeen ni àdduna bi ni muy doxee ngeen yëg ko ak ngeen bañ koo yëg ci yem juif yi ñoo ko géré banque alalu àdduna bi ñoo ci am doole njàngum àdduna bi ñoo ci am doole président yi àdduna bi it ñoo ci am doole nag loolu moom nga nangu ko ak même bu fekkente ni néexu la it mooy li am kon nit koo xamante ni dem na ba jàpp ni amul aw yoon wu mën a jaar pour àgg ci pouvoir lu dul irda yahudi yi muy gërëm loo leen xam nga ni lu toll ni li mu wax effectivement ku ko wax te gëm ko kooko poñ bu rëy rëy rëy lay may ca ñoom parce que la muy wane mooy xeex bi juif yi di xeex pour Israël am seen liberté am seen réewam bopp contre gi ñu contre Makka contre gi ñu contre l'islam dégg gëm gi ñu gëm di gëmloo nit ñi ni yahud yi ñooy shaabullahi almuxtaar mooy peuple bi yàlla tànn ci kaw suuf wax juree ni ngóor si wax xama ndaamal Kajoor xama ndaamal Kees waaye wax jure yee nii képp ku ko wax day am pouvoir ca seen ca ñoom lu ko waral parce que day fekk yooyu dafa leen di incarneel ñoom yiñ doon bëgg te su boobaa nag ban martaba lay daal di jox day tax léegi nag seen lobby yi nga xamante ni ñoom ca la ñuy fale ca la ñuy follee su boobaa da nga fay gaaw a yegg lool benn waaye nettali na boo xam ni fiqa la moo tax may nettaliwaat waxam nee na ma ci sunu élection yële passé xam naa la mu wax sax du lu ñu mën a nettali public nii di ko waaye daal ma dindi leen ci aslëf rek gis nga fi mu nekk nii pour wan lañu ni ñu gérer adduna bi maanaam ci war a falu ñoom dañ koy xam ba siñenteeg moom lañ war a siñen lu yàgg nit ñaa ngi tañ tañi fii jàpp ne diw la du diw fekk fekk préparé nañ kañ war a préparé ba pare mu jox ma ay message ni ma diw xool ko balaa muy falu fii la jaar ak non subhanallah muy muy loo xam ni soo ko dégloo da ngay xam ni kii li muy wax xam-xame na da xam ni kii li muy wax na maanaam tandut di wax kon jàpp naa ni benn ci ñaar yii moo tax nit ki wax waaye man gëw ma mukk ne daa juum gëw ma loolu déedéet gëw ma mukk ne dafa juum déedéet gëw mukk ni li muy wax xamu ko dégg naa ci ñi koy tontu ñu naan ki innocent du innocent de du innocent de dof bu xam fa mu jëm la xam nga ne di nga gis dof boo xam xamul fa mu jëm di kandang kandangi kii bu dee dofa xam na fa mu jëm moom juumut du innocent du dof du ko ñàkk jàng loolu tamit na leer ci bopp nit ñi kii li lu wokkut juróomi dërëm wokk li muy wax xam na ko bu wér a wér problème bi mooy ban objectif moo nekk ci ginnaaw la muy wax foofu la problème ba nekk mi ngi noonu coow laa ngi ni kurru ci biir dëkk bi waaye amut benn werant ci ni jëf képp ku ko wax te fekk la nga wax loo gëm la loola mën na laa génn ci lislaam moom diw génn na ci lislaam moom kenn du ko gaaw wax waaye am na kàddu yoo xam ne ku ko wax ci lislaam boo ko gëmee génn nga ci lislaam bu dee gëm nga ko moom nekkatoog julit moom bu doon da ngaa taxaw di julit kenn du topp sa gannaaw kenn du la jàppeeb julit waaye nag diw xam nga nangam ku ko def génn génn nga ci lislaam bokkut ak diw génn na ci lislaam ndax li ko waral mooy leeg nit mën naa wax dara fekk xamut lim wax fekk am na ngant fekk am naw lay fekk am na ila axiri am na lu mu ca jublu yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne lislaam da koy leer doog a joxe atte waaye ci gàttal daal makka moom mooy makka mooy bakka mooy bal baladul haram mooy rab hadal bayt ah gis nga ak yeneen tur yi nga xamante ni am na ko di ummul qura ila axirihi dëkk boobu nag maam ibrahima moo ko sanc ba mu koy sanc kaaba amu fa dara amu fa moom la sunu borom di nettali nii wa id qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim yonent yàlla ibrahimu alayhi salaam mu ni rabbi yow suma borom ijaal yàlla na nga def hada balada dëkk bii di màkka aminan muy dëkk bu am sécurité adduna bi yëpp màkka ci sécurité la leen ko may nag du dëkk ba waaye kaaba gaa leen ko may li jàngi bi ñuy faral di joxe rek mooy abraha waaye du abraha kese amul kenn ku mës a jub namm ci kaaba gi lu bon lu dul borom bi rëq na sa digg donte nag dinañ gis ay xadis yu wane ni kaaba gi dinañ ko toj ci àdduna buy waaja tukki loolu wér na xadis bu wér la benn waaye bu ñuy wax zus sawiqatayn yent yàlla wax na ci xadis nee na bu àddunay waaj a tukki dana am ay xew-xew yu xew bokk na ci xew-xew dana toj kaaba ga ba mu mokk loolu nag day fekk moom àdduna jeex na boobu moom daanaka toj kaaba ga àdduna tukki u tojut kaaba ga àdduna tukki loolu moom wér na daa bokk ci màndargay àdduna bu tukki wa bu dut loolu mboolem ñi mas a jéem lu bon ci kaaba gi rek gis nañ ko gis ngeen wa man yurid fiihi bi ilhaadin bi zulmin nudiqhu min adabin alim yàlla mu ni képp ku fa nar caay-caay wala ak mbon rek ma lakk loolu mu ci alquran la nekk ca suratul hajj mooy fa muy wax way bawa na ibrahima qaala makaan al bayt allah tushrik bi shay'a gis na kon sunu borom tabaraka wa taala def na ko mu nekk bala den amin dëkk bu am sécurité même te à ci wàllu ceddo ga sax bu ñu mosaan gis caravane boo xamante ni ñoom màkk lañ dëkk da ngay ñu ne hii ñii day ñoom waa kër yàlla lañ ñoom loolu lañ doon wax waa kër yàlla lañ maanaam ñooy waa waa Kaaba ga bu leen kenn laal beneen bi ci des mooy Kaaba ga ca ceddo ga ak ci lislaam yépp dañ koo mas a warmaal gis nga fi mu nekk nii boo duggoon ci biir kaaba gi daje paak ku rey sa baay mbaa sa rakk mbaa sa nangam doo ko def dara ci biir kaaba gi doo ko fa def dara xanaa ba mu génn rek ba mu génn waaye biir kaaba gi moom ku fa xës ba làqu raw nga moo tax gaa yi nga xamante ni dañ doon waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bon am na ci ñoo xamante ni bañ jàqee ñu di leen rëbb dañoo dem dugg ci biir kaaba ga waaye bañ ca duggee yonent bi am na ci ñoo dafa uqtuluuhu wala wajadtumuuhu taxta astaaril kaaba am na ci koo xam ne mu yonente bi dane même bu ngeen ko fekkoon mu tërëx laa yoo mu mbalaanam kaaba ga sax rey leen ndax gëmul sax li muy def ak yeneen ak yeneen moo tax boo seetloo a amaana boobu dafa mel ni pitax yi sax dañ koo yëg yaakaar naa bu ngeen dee suivre da ngeen di gis pitax moo xamante ni su waaye da ngay ñëw xuux du ko dàq da ngay ñëw mu jaar sa xarante tànk dem sa yoon faalewu la sax parce que dafa mel ni ñoom dañoo yëg amaan boobu te it nag bu fekkee sama sama moom fi tax foofu la juddoo di gis loolu sa bàyyi fi tax juddoo foofu di gis loolu yow nga juddoo fa di gis loolu ah noonu lay mën a mel dañ fay tere gor garab xurum ba waxuma a màkk yépp de xurum ndax ci misaal kaaba gi dafa am lu ñuy tuddee xurum xurum mooy su fekkoon suñu jàkka ji mooy kaaba gi ci misaal ñu ni wàññal cent mètres fii cent mètres fii cent mètres fële ci ginnaaw lépp ci xurum bi la bokk nga xam ne àtte bi ñuy jox kaaba gi moom lañ koy jox dig digal soosa doo fa gor garab doo fa rey doo fa rëbb même boo doon aj ba rey fa dara sax sa aj ji dana yàqu mbaa nga dem defari ko defariwaat ko mooy fidya ji ngay def ci wàllu aj gis nga moo tax bi yent bi ne kenn du fi gor garab abbas ni ko ah garab gii di tudd ak izqar nga xam ne bi nga xaw a tolloog garabu fuddam ci ñun donte du ko nag mu ne ko ah waaw gii moom ñun dañ koy soxla ci ni ñuy defaree seen biir kër yi yéen tamit waa garab googu dama bokk ci moom comme da ngeen ko soxla waaye geneen garab gudul moom kenn sañu ko faa dagg bàyyi ba mu deyal boppam baa ba mu daanul boppam kon sécurité bi daanaka ñëpp ko yëg te xam ngeen ne luqab sax dañ koy tere ci kaaba ga muy ci aj est ce ne fi mu nekk nii comme exemple niñ naan boo romboon yëfi jàmbur for ko dagan naam daganut ak coow li kaaba ga ma bokk ci moom aj moom buñ doon aj ñii nga romb benn waaye moom posatam sa yoon néewu ci fa nga koy bàyyi nga dem sa yoon loolu moom ci atte yi la bokk yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ko dee xool ba ci biir di nga xam ni wax dëgg yàlla kaaba ga am na ay privilèges yoo xam ni beneen barab ci àdduna am ko ak yi mën a tudd yi nga xamante ni da nga xam ni kaaba gaa ko jagoo ngóor soosu nag ngóor si ma doon wax sànq maanaam ça veut dire que li mu wax li mu wax bu dee moo ko wax ci fekk niñ ko waxee noonu la ko fasee la muy wane moom mooy màkka moom nit kaaba kon waree su faa aj mboolem ñi fa doon ajee ñëpp seen aj baaxul li mu wax bu tekkee ko kon li muy war ne mooy maanaam bakka jii ñuy wax jii ci Jérusalem la nekk ca ca juif ya waaye nekkul suñu màkk jii maanaam wax yu garaaw la wax dëgg yàlla wax yu garaaw la wax yu garaaw a garaaw la wax ne yu bari nag nit ñi daanaka duñu xam sax dañuy déggum riir rek daanaka ca nit ñi la ñuy topp di wax waaye ñoom duñu xam sax yi danger yi ci nekk mu ni ko wajjanub nii yow suñu borom yàlla nag ma fegal wa baniya ak samay doom an naabudal asnaam ñu jaamu ay xirim aaya ji ibnu kathir bi mu koy tafsir dafa wax ci am solo dañuy war naa bokk ci say ñaan yow mi gëm yàlla mooy ngay ñaan yàlla musal la ci bokkaale waaye musal ci say doom xam nga ibrahima mënoon naa ñaan rek ak ñaanam waaye wajnub nii wa baniya maag saay doom yàlla nag ñu musal ci bokkaale yàlla ndax dara gënta metti seen sa doom suñu borom di ko mbugal ci sababu bokkaale te ku ne xam ne ni bokkaale ko ko faatuwaale suñu borom buggal kon wajnub nii yàlla nag ma pegal wa baniya maag saa yi doom an naabudal asnaam ñuy jaamu ay xërëm te ñaan nga borom bi tabaraka wa taala nangul nag ko ndax ibrahima day moo ko njabootam ñoom la ñuy tuddee almuwaxiduun ci seen jamono ba ñëpp di leen roy moo tax ba mu waxee ca suratu zuxruf ne wa jaalaha kalimatan baaqiyatan fi aqibihi laallahum yarjiun ibrahima alayhi salaam mu ñaan suñu borom mu musal ko ci xërëm ak ya ca des loolu nag kenn ku ne war na góorgóorlu di ñaan yàlla musal ko muccal ko waaye musal ak njabootam muccalu njabootam est ce que xam nga ni sa góorgóorlu ak say ñaan yàlla da ciy sàmm sa njaboot waaw lu wér la de yéen a ngi fàttaliku ca suuratul kahfi wa amma aljidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fi lmadina wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuhuma saaliha yàlla mu ni miir bi ñaari xale yi jirim ñoo ko moom am koom dañ koo dencoon ca suuf miir ba jeng di waaj a daanu suñu borom yebal ñaari yonent muy Muusa ak Xadir ni ci leen miir bi mu ni parce que am koom a nekkoon ca suuf waaye seen bàyyi ñoom ñaari xale ya ku baaxoon la moo dénkoon yàlla alal ja foofu ñenn ci mu fassiru ni ñu ni kon baax bu nit kiy mbaax ak di góorgóorlu di jaamu yàlla ak di ñaan yàlla yàlla da koy sàmmee sa njaboot say sëtëg say sëtër ñi yépp yàlla mën na leen ci defal ba ci àjjana ji sax dangay gis ne walladina amanu ji ma waxoon de wattabaatum zurriyatum bi iman alxaqna bi zurriyatakum mbaax mën na koo yóbbee nit ki mu ne rabbi yow sunu borom innakunna xiram yii day adulal na sànq nañ kasiiram min annaas ñu bari ci nit ñi sànku nañ ñee nga ci xiram ya ñee nga ca bokkaale ya ñee ca ndëpp ya ñee ca xàmb ya ñee ca xiir ya ñee ca xaaw ya kenn ku ca nekk xeet ya ngay bokkaale yàlla subhanahu wa taala sànq nañ ñu bare bare bare bare dara gënta mitti ak nit wala ab nit koo xam ni ba mu juddoo ba nim màggatee ba nim faatoo mi ngi bokkaale yàlla ginnaaw boo déggee ni bokkaale yàlla moom ku ko faatuwaale bu soobee yàlla doo tàbbi àjjana bokkaale yàlla may yushrik bi billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna képp ku bokkaale yàlla ba deewaale ko sunu mu ni àjjana araam na ci yow te sawara ngay dëkk wa ma li zalimina min ansar mu ni ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi duñu am ku leen dimbali sunu borom mu ni ibrahima ni fa man tabiani képp koo xam topp na ma ci sama woote bi fa innahu minni kooku ci man la far ci man la bokk waaye wa man asaani képp ku ma moy fa innaka yow sunu borom gafurun rahim ku bari yërmande nga ku bari jéggal nga waxin wii bokk mbokk jullit yi ku amum xel te dégg ko te xam ni yonent di ñaanee ci ngay xam ne ab yonent ku am yërmande la Isa lu mu waxoon in tu'adibhum boo leen buggalee fa innahum ibaduka say jaam lañ awma ci benn sañ-sañ waaye boo leen jéggalee yow jéggalkat jéggalekat ga xoolal Ibrahima li mu wax fii koku ci man la bok waman asani kuma ku ma moy xoolal ibrahima xam ni kiko ko moy moom bokkut ci mom ba pare waye new fanan bugal ko new fanan bokkut ci man dani waman asani kuma ku ma moy banaa koog yow fa innaka yow sunu borom gafurun ku mën a bale nga waaye rahim ku bari yërmande nga motax لا laa isaa إن تعذبهم فإنكم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم moo tax nee nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàng na aaya ji daal di yëkkati ay loxoom daal di ne allahumma ummati mu daldi jooy sallallahu alayhi wa mu ne ah yow sunu borom man de maa ngi xalaat saaw xeet sunu borom daal di wax jibril ni ko demal te lii may wax mi ngi ci saxiixu muslim ngi ci saxiixu muslim sunu borom daal jibril demal laaj muhammad waaw lan la lu xew te suñ borom moo gën a xam li xew mu laaj ko jibril yonent bi daal di koy xamal li xew tiitaange jeg njàqare ji yépp samaw xeet dong ko waral mu ne ko idhab ila muhammad fa qul lahu inna sanurdika fi ummatika wala nasuu demal yow jibril neel muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaa ko bégal ba mu bég ci aw xeetam te bu soobe yàlla duma xonqal bëtam allahu akbar dina ko bégal ba mu bég ci aw xeetam waaye du ma xongal bëtam sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga yërmande jim amoon ci xeetam mu ni wa man asaani képp ku ma may fa innaka yow sunu borom ghafurun rahim ku mën a baale nga ku mën a jéggale nga ku bari yërmande nga mu ni rabbana yow sunu borom inni man ibrahima askantu maa ngi dëkkal min zurriyati lenn ci saak njaboot gis nga de min zurriyati xam nga waxul askantu zurriyati xam nga bu doon askantu zurriyati mooy ak njabootam yépp la fa dëkkal waa njaboot ga yépp nekkuñ fa ah min googu li tabaid mooy askantu baada zurriyati mooy dëkkal naa lenn ci sama njaboot inni man day askantu dëkkal naa min zurriyati lenn ci sama njaboot bi waadin ci xur woo xam ni gayra zi zarain am mbay meññante amu fa inda baytika al muharram ca sa kër gu sell ga sa néeg gu sell ba di màkk rabbana yow sunu boroom li yuqimu salaata ngir nam rek ñu gën a jekku man di taxawal julli fajal yàlla na nga def afidatan min annaasi ab mbooloo ab kuréel ci nit ñi tahwi ilayhim di jeng ak a bëgg a dem foofa ca barab ba warzuqhum yàlla na nga leen wërsëgal min asamaraati ci ay meññeenteek fir wi laallahum amaan na bu loola amee kat na daañ sant seen borom laaye ji mooy ñaan gi maam Ibrahima ñaanoon ba mu yegsee ca Kaaba ga te bu soobe yàlla ñaan ga nangu na balaa may ñëw ci ñaan gi ak aay ji damay wax di fii daan ci jàng njariñal jigéen bu baax dégg ndigalal borom këram jógal ñu dem mu jóg topp ñu yóbbu ko ba ca àll boo xam ni boo yuuxoo kenn du la wall haajara ba muy ñëw màkka amut ma sàmba amut ma demba amut ak xayma amut ak kër amut dëkkandoo moom doomam ci ndub loolu moom waxuma la jamonoy tey waaye jamono ji wees sax nag jigéen moom xalaatu koo nangul borom këram ah illa man rahima rabbuka lu dul lu sa borom yàlla gërëm waaye nag borom xam-xam yi ci xissa bu mel ni dañ ciy faral di nettali ni gis nga jigéen ji la gën a nangu jigéen ji la gën a nangu moo la gën a indi meññeent mu baax ci àdduna fii ci àdduna rekk bët tege na ci ay nit yoo xam ni binduñ leen ci ay téere waaye ay bët ñoo leen gis ay jigéen yoo xam ni dund nañ ci ay conditions yu metti te muñ ko te yàlla rekk tax sama classe gii li ñuy nekk nekk ay gone teg nañ ci bët sama classe gii li ñuy nekk nekk ay gone waxuma dégg nañ ko de teg nañ ci bët ay nit yoo xam ni barab ya leen suñu borom wàcce woon randuwuñu diisaluñu diis diit diit diit diitaluñu muñ te yàlla rekk tax ba xéewali àdduna fekk leen fa loolu moom sama classe gii man benn ci man teg naa ci sama bët di wane kon la la lu baax mi ngi am ba léegi loolu nag jigéen ju baax dana ci déggee ni comme kilifteef suñu borom moo ko jox góor ar rijalu qawamuna ala nisa demal ca dàggaja demal ca dàggaja demal ca wallu wa demal ca wallu wa demal ca euh, àll ba demal ca àll ba de lu mu la sant fi ni fii nekkut ak mooy yàlla loolu nga war a def dégg ndigal gu mel noonu dafa mel dafa xew yi nag maam dégg ndigal gu mel noonu daa mel daa xew yi waaye warta xew yi de parce que lu baax mi ngi baax ba tey ba keroog addunay tukki day continuer baax lu bon mu ngi bon ba tey te ba addunay tukki day continuer bon luñ dem ba mu yàgg ñu naan eh kaay leen jëf yi soppeeku na la baaxoon bon na la bonoon baax na tax nag fii ci àdduna ay nit yoo xam ne raw nañ seeni morom fekk ginnaaw ndimbalam yàlla de seen yaay leen ko liggéeyal loolu am na de gis nga loolu wolof yi benn waaye mas na maa laaj ci waxtaanu diine mu ni waaw est ce que wolof yi wax nan liggéeyu ndey est am na ci lislaam ma ne ko waaw waaw problème bi mooy ni ko nit ñi di waxee ak fiñ koy sens biñ koy joxee léeg-léeg njuumte da cay am waaye ndax jëmmi am na wala amut ak am bu amut sax lan moo am liggéeyu ndey lu am la boroom xam-xami lislaam yi dañuy wax ni góor dina raw moroom ma ngir ñaari jigéen soxna su baax su ko dar yaay ju baax ju ko tungam léeg-léeg mën ngaa raw sag maas fekk sa yaay la dimbali léeg nga raw sag maas fekk sa soxnaa la dimbali maanaam jigéen ju baax poids bi muy tekki ci góor ay subhanallah xam nga wa bi dëddihaa tatabayyanu al ashyaa contraire bi est que xam ngeen ni jigéen ju bon ci boppam man naa yegg yegg ak góor foo xam say jaamu yàlla sax daanaka du yegg fenn sax ñaan sax suñu borom du ko nangu jigéen ju bon mën naa dem ba yegg ak góor foofu loolu li may wax nii xadiis la jigéen ju bon day yàq góor ñëw na ci ñaani sunna yi bi ñaan yàlla musal ma ci jigéen joo xam ne dana ma génne loo be jaaw te fekk ko jot loolu ñëw na ci xadiis doom ju bon wala joga jigéen ju bon joo xam dana ma be jaawloo te be jaaw génn gut loolu ñëw na ci askari sunna yi pour nga xam ni kon lu dangereux la waaye jigéen ju baax ah subhanallah jigéen ju baax maanaam da ngay jékki-jékki rek seen góor mu aju ca kaw fekk man na ni jigéen moo ko tungam waraa kulli azimin azima góor goo gis rek muy siggeeka link liku rek bu yow nga xool ba xam jan jigéen moom kay bul werante ni jigéen a ca pegg ba moom moom kay yaayam la wala soxnaam la ñuy wax yaayam la wala soxnaam jan jigéen la ci jigéen kon borom bi tabaraka wa taala yoonal gi mu yoonaloon Ibrahima def lii jigéen ñi jàng nañ ci lu bari ndaw si dem fa dégg ndigal lool nag toog ci àll ba ca ndànd foy foy ba gaynde ya mën ko faa lekk bukki ya mën ko faa lekk as as ëmb as këmb su ndaw la yore woon lekk ne ca as ngurtu su ndaw ndox ne ca yaag sa doom jigéen nekk ci ay danger ndaw si xam na ne lii danger la te waroon na koo mën a bañ lan moo ko teree bañ allahu amaraka bi hada est ce que lii ndigalu yàlla la mu ne ko naam mu ne ko ah ndigalal yàlla moom sañu ma cee teg baat daal dem toog kon ndekete lépp looy séen ci sa kanam jàpp ni risque la boo ko nangoo assumer ngir gëm ni ndigalal yàlla la yàlla walu la moo tax yàlla wallu ndaw si gis ngeen ko wéetaayam ba dëkkam ba dem na ba ñëpp bëgg ko tey mën na wax ne Ismaayil ak Hajar ak Ibrahima bu ñu dekki waatu ñun leen Makka ngii ah dinañ xoolaat bu baax a baax a baax a baax ndax fan sañcoon ak fi ni mel tey wuute na lool sax waxuma sax ibrahima waaye yonent bi rek sallallahu alayhi ak saxaabam bu njekki waatoon gis màkka ni mel tey ak madina da nga xam ne yëf yi soppeeku ku rëy am na ci diggante bi kon yow sunu borom askantu min durriyati lenn ci sama njaboot laa dëkkal bi waadin gayri di zara'in ci xur woo xam am mbay amu fa lu ñuy lekk amu fa inda baytika al muharram ci sa dëkk bi nga xam ne sa néeg bi nga xam ne néeg bu ñu bi rabbana yow sunu borom li yuqimu sala ngir ñu mën a fajaal yàlla na nga def af idatan min annaasi ay mbooloo ci nit ñi tahwi ilayhim seen bëgg-bëgg yëpp mooy dem fa allahu akbar ñaan nga nangu na tey jii ku dem bëgg naa demaat man damay toog yàgg ma ne bu doon sax ki demagut moo bëgg dem sax nga ne xel nangu na ko waaye fi mu nekk nii ka demoon moo gën a bëgg a demaat sax ki demagut xaw ma loolu lu ngeen comme déet léeg-léeg da gis da bëgg a mere sax ki demoon ndax da ngay gis ki demoon di wax wax yoo xam ne da nga waaw kii moom du puus fële ba ñu demalu ko loon dem muy wax waxin woo xam da ngay xam ni subhanallah am na je kenn jenn yenn jigéen joo xam ne bi ko suñ borom wërsëgalee mu aj ba aj ga jàllee ca déwén sa biñ tollaate ci période aj ma woo ko ñuy waxtaan mu ni fi mu nekk nii mënatumaa lekk mënatumaa naan mu ni saa su ma yeewoo sama xel ma ca barab yooyu lay nekk ma ni gis nga ka demoon fi ne moo gën a bëgg a demaat ci demagut taxut di wax tahwi ilayhim ñaan gaa nangu ca suratul baqara ah ca suratul hajj wa addin fi nnaasi bil hajj bu ngeen fàttale ko ci tafsir suratul hajj suñu borom dañuy Ibrahima wooteel nit ñi aj mu fassiru ni suñu borom Ibrahima ni ko waaw kan laay woo mu ne ko wool nit ñëpp dinañ la wuy si mu ne ko ah fii ma toog nii moom mën naa woot mu ne ko wooteel rek maay jottali kàddu gi Ibrahima yéeg ba ci kaw ak montagne ee yéen jaami yàlla yi seen borom yàlla moo ma digal ma jottali leen ni néegam bii daa bëgg ngeen aj ko nee na bi mu ko waxee suñu borom daay woyofal kàddu gi ba kàddu gi fu mu daj kapp ci adduna bi ku ko war a dégg rek dégg na ko loolu nag kàtt nag suñu borom tabaraka wa taala moo tax yatuuka rijaalan wa ala kulli daaminin yatiina min kulli fajjin amiq ci suratul hajj ay nit ak ay góor ak jigéen ñii di dox ñii dugg avion ñii dugg gaal ñii dugg nangam ñii de bu njëkkoon boo xoolee nit ñi nañ doon ajee nga xam ne yàlla wa aataakum min kulli ma saaltumuhu jëj dëgg la de da gis ñu naan la bàyyi diw 1956 wala 1930 nangam ba mu bayee ñaari ati gerte moom la boole ba muy dem Mali gii la jaar jaar fii jaar fii def na ñaari at ci doogu ñibbi a ñibbisiwaat ñu ni bàyyi dul sax ci yoon la faatoo fii ngay gis ay mag yoo xam dañ ne diw daa dox dem màkk diw daa dox dem màkk loolu am na fii lu yàggul kon moo lay wan ni ñooñu day seen ak aj moom am nañ ci yaakaar lool kon defal ay nit ñuy jéng jëm fa fii tamit benn mu fassir dani afidatan min annaas mu ni gis nga boo waxoon afidatan naas mu ni àdduna kuy julli sa ko dul julli ñëpp danañ buub jëm ay xol min annaas ci nit ñi kon am na ñuñ dugal am ñuñ génne mu ni gis nga bu fekkoon dañuy comme ni mu wax askant zurriyati mu ni min zurriyati lenn ci sama njaboot parce que jaboor ga yëpp dëkkuñ fa waaye bu ni woon afidatan naas mu ni kon nit ñi ñëpp dañuy riir wuti kaaba ga tahwi ilayhim mu ni warzuqu min alsamarat yàlla na nga leen wërsëgal ay xeeti meññeent gis nga bokk yi màkka mooy dëkk bu yéeme màkka mooy dëkk boo xamante nii dara ci li ñuy noosee bayee su ko fa te lu waay bay indi sa indiwaal la lu waay bay indiwaal la waxuma la béreetu aj de maanaam comme ñun ni nga amee ay réew ñu naan réew sàngam mooy bay moom wala pommier pomme pomme gën a bare ñii ñooy bay raisin ñii ñooy bay nangam ñii ñooy bay nangam foofu bayuñ fa dara bayuñ fa dara par rapport ak la fay ñëw su ma ne bayuñ fa dara mooy par rapport ak la fay ñëw la fay ñëw bayuñu ko fa waaye gis nga fi mu ne nii waxuma la waxuma la jullit ñi waaye même ñi nga xam ne dañu yor ay entreprise di jëfandikoo ci li liggéey ci lu nit ñi jëfandikoo ci adduna bi partout est-ce nga ne am na yéefar yoo xam ne ñoo la gën a yàkkamti ak jot am na yéefar yoo xam ne ñoo la gën a yàkkamti ak jot fuuf parce que li ko waral mooy même buñ ajiwut li yashadu manafia lahum njëriñ seen njariñ ya fa nekk tax parce que mboo loo fa jaay mu jar ah yow xoolal barab boo xam ni daje bañ fay daje àdduna bi yëpp adduna bi yëpp a fay dem foofa ngay gis xeeti nit ñoo xam ne mosoo gis nit ku ni mel ñun la kii ci kii ci adduna bi la nekk léeg-léeg nga gis aw xeet woo xam dañoo gàtt nga gis xeet yoo xam dañoo njool nga gis ñoo xam dañoo digg dóomu nga gis koo xam ne sum way yaram waa nga weex tàll tàll ba boo koy bomb sax muy naaj muy muy deretal façon nit ku nekk nga fay gis lu ko waral yatuuka rijaalan nit ñi dañuy ñëw di wuy si parce que ku ne daa bëgg a barab ba at mu jot ñu yokk rek moom dañuy yokk di yokk te yokk gi nga tàmbali bul kaati démb de am na xutba yu ñu defoon fii ci silsilatu taarixi binaa il leeral nañ ci ni ay yoon yooni yoon yu ñuy yaatal kaaba gi xam ngeen même ci jamono Omar ibn al-Khattab même ci jamono yonent bi même ci jamono Osman mu ngi mel ni kaaba gi nii la mel xam ngeen fii fi ne bu ñu bëggoon a yaatal jàkka ji bu yàggee am kër yu jóg mbir mi noonu la meloon ci jamono yu Omar moom dalay wax jógal nga jóg mu dàmp dàmp la nga dem bu nee la jógal nga bañ nag xam am na ñoo xam ne dañ doon bañ parce que doo bëgg sa kër jege kaaba bu nee la nga bañ bu da ba nga ni tëj la ca kasabab diir te ndax sañ na ko loolu amir sañ na ko parce que li ñëpp bokk li ñëpp bokk des ko yabal a jëfi kenn moo tax kaaba ga di yokk al masjidu nabawi di yokk te xam ngeen day gën a yokk nag lu ko waral mooy fii ak àdduna ngi dem nit ñi dañuy gën a bari ñi aj di gën a bari segam ñi ajoon ñi ngi waaj ajiwaat ñi bëgg ajiwaat ñi ajiwul woon di bëgg aji yëf yi day gën a bari moo tax suñu borom mu ni warsiqu min asamarat wërsëgal leen ci ay firwi laallakum yashkurun ngir nu mën a sant suñu borom waaye est-ce que ngi sant nag foofu la problème bi nekk wa laqad saddaqa alayhim iblis wannahu fattabauhu illa fariqa min almuminin iblis lam doon naal di ko bëgg dëgg la mooy dinaa fexe ba ñu bari duñ la sant yow yàlla mu ne rabbana yow sunu borom innaka yow de taalamu aji xam nga ma nux fii li ñuy nëbbu wa maa nu'linu li ñuy feeñal allahu akbar nit ñi nga mën a nax de waaye sunu borom yàlla mënoo koo nax fi ne li nga denc ci sab xol ak li ngay wax te fekk du dëgg yooyu yëpp yàlla xam wa ma yaxfa nëbbuwut ala allahi fa yàlla min shay'in ci dara fil ardi moo xam ci kaw suuf si wala fi samaai moo xam ci asamaan sa yàlla dara nëbbuwu ko ibrahima mu ni alhamdu cant de ñeel na lillahi alladi sunu borom yàlla mi nga xam ni wahaba lii moo ma may alal kibari ca ba ma nekkee mag ismaila doom ju ñu tudde ismaila wa isxaq ak doom ju ñu tuddee isxaq est ce que xam ngeen ni ibrahima dem na ba am juróom ñett fukki at te amul doom yëf yi boo ko xoolee yéeme na de ibrahima dib yonent yàlla ni wattaxada allahu ibrahima xalila bàyyil xel baax lii may wax ibrahima ab yonent la mooy abul anbiya yi ndomba tànk bi mu yore benn yonent yorewu donte sunu yonent bi gën waaye benn yonent yorewu ndomba tànk bi wattaxada allahu ibrahima xalila yent yàlla bi ca ca reñaan ga romb na benn waay bu wéeru ci ab miir buy niroog kaaba gi muy baytul maamur mu ni jibril kii kan la mu ni ko kii mooy maam ibrahima mu ni ko waa mboccaaraj ci yi ma seen ñu wër leen mboccaaraj ci yi mooy xale yu tuur ay ko lay tuuti mi ay ndongay daara ñii ñoo ñan mu ni ko mooy ñii ñooy doomi jullit yi nga xam dañoo faatu te mataguñ mu kàllaf te war a dem àjjana maam ibrahima ay mottali seen yar foofa allahu akbar Ibrahima moomoog daraja ji mu am li mu kawee nekk bu yonent mboolem sabab suy war a mën a tax nit di am rek Ibrahima dajale na ko mu dund ba am juróom-ñett fukki at yàlla mayu ko doom loolu day ku dib jullit te yàlla wërsëgalagu la njaboot boo ci xalaatee yaakaar naa ne dana am lu bari lu mu wàcc ci yow donte nit ak bëgg-bëggam nag moom daanaka day gumba day tax loo ko wax du ko dégg nit moom bu xasee bëgg dara loo ko wax du ko dégg ñaareel bi mooy Ibrahima yàlla bàyyi ko ba mu nekk mag quatre-vingts mu may ko doom moo lay wax ne li ñuy wax naan mu ne ménopause lañ koy wax ma yooyu yëpp waaw d'accord xam-xam kenn du ko weddi de waaye nag bu mu tax nga jàpp ni lii rek mooy règle la boo xam du soppeeku déedéet ay règle la yu mën a soppeeku de dañuy wax ni jigéen bu amee nangami at mën naa bañ a amati doom foofu sax góor a ci xawatane ndax góor moom gis ngeen góor dem ba dund juróom ñett fukkat di doom parce jigéen moo gën a gaaw a perte que waaye sunu borom tabaraka wa taala mu ni man maa may Ibrahima lii moo tax Ibrahima mu ni alhamdulillah sant ñeel na sunu borom. waaleykum salaam. waaw doomu mu ni alhamdulillah sant ñeel na sunu borom alladhi mi nga xamni ni wahaba lii moo may alal kibari cik magal ismaila yent yàlla ismail wa ishaq ak yent yàlla ishaq muni inna rabbi sabaram yàlla day la samiu du'a aji dégg la ki nga xamni da fay ñaan sunu borom tabaraka wa taala ci condition yi nga xamni ne doomu aadama jàpp nay nit mënu ci am doom ci la ko suñ borom maye doom subhanahu wa taala allahu akbar gis ngeen yent yàlla zakariya timit kadalik ci suratul maryam lam doon wax inni wahana wahana al azmu minni mak mu dem ba danaka liñ na yarama mak fo foolaal day métti ala rasu shayba bobbi tak tàkk ak be jaw ha ba pare wam raati aqir timit soxna si daa jaatir mu teg ci ni walam aku bi du'aayka rabbi shaqiya te ba léegi awma ñàkk yaakaar ci ni yàlla danaa la ñaan nga may ma moo tax gis nga mbooleem sabab yin jàpp ni mooy tax nangam du am yàlla mën naa teg yooyu yëpp amal li mu bëgg am yow gëmal ni ki ngay ñaan lu ne la man subhanahu wa taala sunu borom mu ni ibrahima ni maa ngi sant sunu borom mi nga xam moo may cig magal ismaila wa ishaq inna rabbi sunu borom yàlla samiu du'a ku mën a dégg la ak ñaan mu ne rabbi yow sunu borom ijaal nii yàlla nanga ma def muqima salaa may taxawal julli wa min zurriyati ak saak njaboot ñu nekk ñuy taxawal julli rabbana yow sunu borom wa taqabbal du'a yàlla na nga nangu saak ñaan moo taxit yàlla nangu na ñaan ka mu ne rabbana yow sunu borom igfir lii yàlla nag ma jéggal wali waalidayya jéggal samay ñaari wayjur ñaan gi ba ko Ibrahima ñaan booba suñu borom waxagu ko ne ko kenn sañ te ñaanal ab yéefar xam nga bàyyi yéefar kenn du ko ñaanal wa ma kaana istigfaaru ibrahima li abihi illa an mawidatin waadaha iyaa jéggalu gam ko doon jéggalul dig bu mu ko digoon mu matal dig ba waaye ba ko yàlla ne ku dee ci kéefar a nga jëm ca la ko bàyyi ñaanalatu ko kon jéggalu maag samay ñaari way jur walil muminin yàlla na nga jéggal ñi gëm yàlla ñëpp ibrahima baax na de ñun ñi ñëpp ci ñim doon ñaanal fi ne ca lañ bokk amin mu ne wa yawma yaqumul xisaab yàlla ñu jéggal bis ba nga xam ni ca la àtte bi taxaw mu teg ci ne wala taxsabanna allaha bul yaakaar mukk ni moom yàlla gaafilan dafa yëgut wala dafa sàgganee amma yaamalu zalimun li tooñkat yi def li la nga dégg benn waay bu tox wax am innamaam toj penc moo xam ni kenn xamut kàddu génn ko nit di waxee suñu borom ni ceel rek ba ko fi rek léeg-léeg nga gis nit def lu bona bona bon fekkeer lu goo xam ni suñu borom ba ko fi rek léeg-léeg nga gis nit def loo xam ni bu doon yow ba léegi tukkal nga àdduna bi suñu borom ba ko fi rek yàlla muy déedéet bul yaakaar ne yàlla dafa yëgut wala dafa sàgganee tooñkat yi li ñuy def nit nag daa yàkkamti ñun dañuy bëgg benn waay bu def naka su dul noonu rek bu subaa ñu rëq ndiggam fekk déedéet yàlla lépp lu muy def da koy programme ay àpp lay am am na benn borom xam bu mag bu taalib alzalimuna fi l ardi maaluhum wa masiruhum ñi doon tooñ ci kaw suuf fan mujj ñoom namruus ak ñoom kan eh, eh, subhanallah firawna haamaana qaaruna mboolem ñi fi mës a jaar ci ay bandi indi na leen ba ci abrahatul xabashi ba ci abu jahlin ñoom ak ñeneen ak ñeneen kenn ku ci nekk bu waxee ta dund wax fa suñu borom mujjanteeg yow suñu borom ni innama li am mooy yu axiruhum daf leen di yéexee li yow yawmin ci bis boo xam tasxasu fiihi daje ci buqeeku al absaaru gët yi tasxasu fiihi al absaar mooy nit ñi danañ tiit xam nga nit bu tiitee rek xulli yi